asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di tuddee suñuy kàddu sant yàlla ci mbooleem nag ay xéewalam yu mu defal ci lu ñu yëg ak lu ñu yëg ci jot a wàcc ak li ñu yaakaar ci di ko sant moom yàlla sant boo xam ne yàlla ñu ko màggalal réyalal ñu ko ba mu tolloo dayoom moom subhaanahu wa taala di jullee ko sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla ñu yàlla boole ci gën ci dëgg njabootam di wax suñu gan bi ak ñu mu àndal wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yi koy wax ci daara yàlla ji ci néegu yàlla bi ci bérébu yàlla bi di kontaan ci mboole bi ngeen ñu boole ci ñi ngeen war a dajeel nemmeeku leen nuyu ak ñoom loolu sant nañ ci yàlla waaye tam sant nañ leen ci te itam lu bëri la ci ñun ah, sëriñ daara nag ak imam ak mbooleem kuy représenté diine kooka day tëdd tëdd njaaxaan naay te xam ne nekkalu fi nit ñi mais diine yàlla ji la fi nekkal nit bu ko soxla tàllal ko loxo te la mu ko araamul nekk luy defar diine wala luy defar àdduna amul droit banque loxoom ci kanamu jullit boobu loolu moo tax ngeen am àqu ne da ngeen di ñu ñu am àqu leen bismillah dalal leen tatagal leen sargal leen déglu leen itam ngeen nuyu wax ni lool nekk nag day yell ci ñu rawatina ci koo xam ne ay mbir yu bari da leen a boole ah, man deux mille huit deux ba tey agence bi yor wàllu ak ci impôt et domaine man maa leen jiite ak dëgg yaakaar deux mille sept ba tey bi nga xam ne sa waajur bu jigéen ak ñu yi man mi maa ko ji ci ajam bi suñu yaay mel bopp boo ko ne boo demoon tey ne ko ma fàttali ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñett mbir ko waral doxu nemmeeku doxu sàkku ñaan doxu déglu askan wi ak ay conseil loolu bu bu bu taxee jóg nit ma wax jullit bu taxee jóg nit fu mu dem dinañ ko dara léegi nag euh, kilifa doo ko tënk ci jotaay bu yàgg yàgg yàgg ñun ñaan yi jiital nañ ko ci réew mi ak mbooleem ku am yéene bu rafet ci réew mi loolu jiitu na tey ndax kuy dund diine xam luy jàmm xam luy ñàkk jàmm ak ñuy déstabiliser réew ba kenn du tala julli mbooloo kenn du tala dem jàpp kenn du man a aji loolu booy nitu diine nga xam ko di nga xam ne réew waxuma la sa réew mi nga dëkk waaye àdduna bi yëpp sax ñaanal leen jàmm defal jàmm samay dénkaane eh, Cheikh Ousmane day commencé ci yëgal la bi sàkku day am njiit ci réew citoyen bu nekk am nga ci sañ-sañ su fekkee ne charte yi sàkku ko dajale ci yow waaye nag du lu yomb rawatina ci réew yu mel ni Sénégal bi bari na ay cëpp-cëpp bari na ay gàllankoor balaa moo tegu sa loxo bu tegoo sa loxo ba pare nag déq-déq yooyu gàllankoor yooyu day continuer waaye day ànd ak ay responsabilité yu diis loolu nag yéen ñi nekk ci terrain bi nekk di ko sàkk jëf ay at defe naa ne yéen ñu ko gën a xam waaye nag ki koy sàkk ak ku mën a doon muy moom muy keneen ku mën a doon kuy sàkku jiite réew mi maa ngi lay dénk ndénkaane yi di ñëw bi ci jëkk mooy yéene bu rafet mbokk jullit ñi kiy sàkku jiite am réew te xalaatul lu dul boppam yéene bu rafet yéene bu rafet ci sàkku réew sa yéene mooy doon li fi yàqu nga jëm koo defal yéene bu rafet ci sàkku réew mooy nga pare pour doon jaamu askan wi yaay mujjee tëdd yaa njëkk a yeewu bu ñàkk jotee yaa jëkk ñàkk bu séddoo jotee yaa mujjee am cër loolu yow mi wut réew war koo yor yéene boobu ngay am ci sa xol pour yàlla xam ne yow sa yéene ci yow réew mi rafet na bi gën a yéene boobu bu rafetee soo tëddee nelawal ndax yàlla amul lu dul ay jaamam ci kaw suuf te képp ku jóg pour taxaw jaamu yàlla yi ak dimbali leen ak yërëm ak yombal seen mbiri diine seen mbiri àdduna kooku dootul yar jaam yi mais yàgg yàlla la hmm. yàlla ci boppam moo lay taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ay xadis yu bari yu bari ci ku defal nit ñi lii yàlla defal la lii ku defal nit ñi lii yàlla defal la lii ci contraire bi mu naan def nit ñi lii yàlla def nit ñi lii yàlla def la lii benn borom xam-xam synthèse xadis yooyu ne daal dëgg-dëgg kun linnaasi kama tuhibbu an yakuna allahu laka nekkal ak nit ñi comme ni nga bëgg yàlla nekkal la maanaam noo jëflanteeg nit ñi noonu la yàlla di jëflantee ak yow loolu moo tax assurance ci am li ngay sàkk gënu la rëy jamono yi ngay sàkk benn poste benn pal benn liggéey nga yéene ci liggéeyal sa askan liggéeyal nit ñi jaamu yàlla ci ñoom am na kàddu neex lool ci kàddu yi ñu daaneel mooy coono bi bari mais lii yituma ci lu dul jariñ askan mais dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw loolu mu tudd ko parce que mën ngaa ne jëriñ askan bi ba pare sa xel bu nekk jaamoo ko yàlla mais mu ne da koy jaamoo yàlla loolu nag su wéree yow sa coono say dépense say ñàkk nelaw yàgg ñiy ànd ak yow ci yéene boobu jàpp leen ne ci jaamu yàlla ngeen nekk su fekkee ne yéene boobu wér na am nañ ci njort bu rafet ak hmm. yaakaar kon yéene bu rafet ñaareel bi mooy wutin wu rafet mbokk jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ittaqullaha wa ajminu fi talab ragal leen yàlla da ngeen rafetal seen càkkutéef ni ngeen di sàkkoo ni ngeen di sàkkoo mbir ak mbir mu mën a doon na rafet sàkku mbir mu rafet nag mooy boo dee nitu diine sàkku loolu ak sër ci jot ko mu ma la wàccee ci say principe diine bu dee nit principe ngay sàkku loolu mu ma la wàccee say principe bu dee yaa ngi bàyyi xel gor ak der bu rafet sàkku loolu bu mu la tax a goree sàkku loolu bu mu la tax a lor nit sàkku loolu bu mu la tax a bañ nit ku la deful dara te rafetal li ngay sàkkoo xañu loo war a am mais ñaawal li ngay li ngay sàkkoo ñaawal li ngay sàkkoo du la jox mukk loo war a am feebar boobu nag ñu koy jooy lu bare baree bari ci askan bi yëpp waaye rawatina nag ci ñi féete ci langue politique dinañ waxante lu ne dinañ defante lu ne dinañ fexelante lu ne te dara jaru ko qul illahumma malika al mulk tuuti al mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudillu man tasha nguur bi yàlla doonee nguur ba pare dafa saytu nguur nag ci loxoom pour wane nguuram daa mat xam nga ku sa nguur matul ku sa nguur matul yow doo mën a assuré sax sa nguur sa nguuru bopp waaye ku sa nguur mat ku mel ni yàlla nguuram mat bi mu mat tax na ba lépp luy nguur moom moo ko yor ku ko mu jox la ko ku ko soobit mu foqar ci ko ci yow léegi nag loolu bu ko nit xamee suy sàkku li muy sàkku dina ko sàkku ci dal ak tey waxal li nga yéene askan bi waxal say projet waxal say naal ah, ah, li ci def nga bàyyi ko ci loxo yàlla subhaanahu wa taala nga dëggu ak nit ñi nga moytu lu bare bare bari li ñuy dégg ci ñuy sàkku pal yi ci ay dig yoo xam ne day nax saay jamono yi koy dig nit ñi xam ne la nga di dig waajoo ko xalaatoo ko parewoo koo def te loolu nag jullit bu nekk xam na ne bokk na ci mandargay naafeq idaa wa'ada axlaf te yaakaar naa ne kuy jullit bëggoo doon ab naafiq moytu wor ngir àgg ci li nga bëgg doon damaa wax ne ginnaaw bi wor yàlla wéyee dara gënu la garaaw wor ab askan te bokk na ci wor ab askan mooy nga dig a dig a dig a dig ba ñuy yuut nga ñëw la nga leen digoon lépp lax saay loolu yàlla nañ ci yàlla mos maa ngi wattuloo sëñ Ousmane ni di ko wattuloo mbooleem kuy yëngatu ci wàllu woowu loolu ñu sori ko ndax àdduna da koo jarul ci mu ne nii balaa ngoon kenn ci ñun moomul bakkanam jëm ay ay nit jaake ci tappale ñu àggu fa ki ñu amal affaire gëmul nelawul bokk na ci ndénkaane yi warmaalal ki nga bokkalul ay camp ci wàllu politique warmaal ko amal respect ci moom bu waxante dëgg jotee ngeen waxante dëgg mu yem fa sosalante ak saagante ak xiiroo ak ñaayoo loola joxul dara kooku bu defee lu rafet nga apprécier ne rafet na su juumee nga corriger ko ci ay ak ay teggin euh, li may mujjee nag ci ndénkaane yi day dem ci ñi entouré toujours kiy jóg di dox di wut lu mel ni wala koo xam ne nekk na sax ci loxoom ba pare ñu koy entouré bokk jullit yi ñii séq ab kilifa bu yor réew di ko doxal wala muy wut réew di ko waaji doxal nañu ragal yàlla ci moom buñ ko wax lu dul dëgg buñ ko dugal bu ñu dox ci seen intérêt yi na moytuloon ñu wër kooku nekk di xiiroo ak a naayoo ak a xeexoo ak a xëccoo ñoom suñu dundee loolu seen yéene wuute ak yéene kañu ne moo leen jiite mais loolu won askan bi ne ñii li ñuy woote woon dëgg nit ñi ko wër dañoo am looloo tax ñaan yàlla entourage bu jub entourage bu maanu entourage bu ragal yàlla entourage en tout cas boo xam ne dangaa bokk ak ñoom yéene am solo lool euh, Ousmane li may daane mooy li ma ñaan yàgg a ñaan ci sama minbar bi mooy yàlla yow subhanahu wa taala yow mi moom nguur di ko joxe bu la neex nga fal bu la neex nga foqal ay nit ci loxo dañ lay ñaan koo yël lu xolam xam ci moom yéene bu rafet xam ci moom maandu xam ci moom yërman yërmande ci ci askanam xam ci moom dox seen digganteeg lépp lu leen di képp koo xam ne yow yàlla xam nga ci moom loolu ñu mm-hmm. ngi lay ñaan ci doole ak ci sa kàttan mm. ak ci sa mbaax ak ci sa sañ yor bi nga yor lépp di def lu la neex ñu ngi lay ñaan kooku yàlla na nga ko xéewalal nit ñi koo mm-hmm. yëngu ci xolam nag yow yàlla nga xam ci moom wor wul ak nate ak nkonim kooku yàlla na ñu musal yow yàlla ci mujj ñaan gi nag séeréer naar bambara soose fu nit bokk fu ci réew mi ak boo man di wuyoo ak bi ñaanal naa la bu yéeneem gën a na fële ci ñaan bu yéeneem gën a sori lii yàlla na la geneen bi dal te mooy yàlla musal ci yow musal ñu ci saw ay imaam ahmad dafa doon wax ne bu amoon ñaan boo xam ne yàlla assuré na ko ko ne bu ko ñaanee dina nangu te fu mu ko fu mu ko ñaan la koy defal kon day ñaanal njiitu réew ma ndax bu baaxee jubal am jàmm yéene réew mi jàmm jubal nee na ñi koy am jàmm su mel noonu nag safaan bëgg a maa ngi daaneel ci di gërëm mboole ñu ànd ak euh, sëñ Ousmane ak ñi ko nekkal fii parce que ñun nag lii duñ ci xëcc duñ ci yëy duñ ci yàbbi duñ ci def dara bi ma déggee daal ay ay ay rumeur ci ne mën naa am euh, sëñ Ousmane dina jaar ci ci ci ci dëkk bi ba tudd ci sama tur ci laa jokkoo Mamadou Gaye mi Mamadou Sow mi ci sama jarbaat di sama dëkkandoo ca fa ma ak dund mi nga xam ne ñu ngi defandoo fii ci dëkk bi ci wàllu diine ñoo koy def laa jokkoog ñoom ne leen damay bañ gan kilifa kilifa bett bett la kilifa bu lay seet si de du la bett nga nga waajal ko toogee noo xam ne bu ñëwee dina dina dina dina xam ne wax dëgg yàlla jox nga ko gën wante nag yàlla bu ñu tiim xam na ne lii bu ñu ko waxoon waa koñ bi waxuma la waa dëkk bi mais suñu waxoon waa koñ bi ne da nga ñëw kon bu ngeen di ñëw fële du ngeen waa koñ bi rek laa wax yëgaluñ ko kenn kenn kenn moo tax ngeen gis sama dëkk yooyu ku ci dugg rek dama lay bàyyi dama lay nuyu baalu la parce que waxuñu ko kenn comme euh, nature ñëw bi mooy nemmeeku ci ak seet si loolu moo tax itam ji moo leen tax a jóg kër gi moo leen tax a jóg ñëw saafonte gi moo leen tax a jóg waxuñu ko kenn daara ji rek ngeen fekk ak waa daara ji ba ci suñu yaay yee ñu gis ñu toog ñoom dañoo bokk ci daara ji di ci jàng loolu ko moo tax ñu ngi koy déglu ñu ngi ñaan yàlla mu sàmmal ñu suñu réew mi defal ñu ci tawfeex def juboo ci diggante jullit ñi def juboo ci diggante citoyen yëpp ñu ngi muslu yàlla ci ay fitna ñu ngi muslu yàlla ci ay fitna Seydina Ousmane sa turandoo Ousmane ibn Affan bi mu yoree état bi état islamique ci jamono ba am ay nit ñu fëll ak doole am ñu leen di manipuler ñu nekk seen gannaaw ñu nax jullit ñi xaar ba ñu aj ñu mat ñetti junni ñëw Medina ñëw gaw këram wër ko ne ko da ngay wàccee sa bopp mbaa di rey saxaaba yi am na ñu bari ñu aj woon am na ñu bari ñu desoon biir Medina dañoo préparé doon juróom-ñaari téeméer diggante almuhaajiroon wal ansaar ñëw ba ci Usmaan ne ko tey nag la ci jaasi jaadu tey la bocci jaasi jaadu parce que yow mii duñu seetaan kenn di la def dara Usmaan ne leen su dee gëm ne su dee gëm ne maay seen ami te bu ma leen digalee da ngeen def su ma leen teree ngeen bàyyi delloo waat leen seeni jaasi te dellu seen ñu ne ko nii dañ lay rek mu ne leen su ma reyee man kenn kese la ñuy rey hmm. parce que man bëgg maa dajeeg yàlla ëllëg bu may laaj benn topp dara mu dóor mu jëmal loolu laay jëli samay kàttan ci rek di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh